asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 UEFA Champions League la dooree ak match yi nga xam ne xewoon na tey ji match yu neex amoon na am ci ñoo xam ne qualifié nañu am ci ñoo xam ne demoon nañu bay bëgg a qualifié dal di luppe waaye ñu gis ci ay joueurs yu wane seen bopp bu baax ci ngoonu tey jile danañ ci ñëw léegi jox leen tab li nga xam ne mooy classement yi am ci équipe yoo xam ne dèjà toog nañu mënatuñu qualifié bu ñu ñëwee nag ci nga xamante ni tàmbalee woon nañu ko ci bëccëg ndax ci bëccëg amal nañu ñaari na ci dafa dal di duma Newcastle United 2-0 mu nek match bo xamne nak da fay wanen rek deug deug Dortmund mo man Newcastle ndax aller ak retour la ko dal di dóor aller ba daf ko patalon 1 0 retour bi mu dal di koy dóor 2-0 Newcastle dal bu ñu sañoon duñu mossa a ak Dortmund ndax kat li nga xamne jot nañu ko woné ci match bu njëkk ba contre AC Milan ñëpp di len taccu ñu dal di am li nga xamante ñoo di Paris Saint-Germain dal di koy duma dóor yu metti sax ñu jàpp ne nag Newcastle mën na def lu rëy ci li nga xam ne mooy Ligue des champions bi jile waaye daal bi mu dalee ci Dortmund daf ko dal di pattal retour bi ñu yaakaar ne ndax dégg maam dafa rëccoon mu dal di koy duma ñaari bal ci dara kon Newcastle dëgg-dëgg Dortmund moo ko mën waaye beneen match bi xewoon ci bëccëg bokk na ci ñi di Shakhtar Donetsk bi doon joué seen diggante ko ba taxna Barça qualification mom jotagu ko dafa am pour door dàqe ci yenen match yi di ñëw wala yenen match yi di ñëw mu lijjante ko xol ndax dina mëna qualifier am det ndax ba fi ñuy waxé kat qualifier gul waaye nak li nga xamné mo ci doy doy war moy savi bu yeen baye xel mom dafa melni mom Europe daf ko déssé mané de savi limu gagné ci ay match ci Europe bari wul de bi mu ñew ci Barça ak légui dal lu toll ci 20 match na nañu joué na ko waaye 7 kep la ci dal di gagné man nañu wax ne 7 match la dal di remporté ak Barça ci 20 yo xamné ne joué joué na ko moom kii di Xavi Hernandez loolu dafay wane rek melni na ni xarañteem dal ci Europe dess na dess na bu baax sax tay ji match ni rek la soxla woon contre Shakhtar bi nga xamante ni daanaka taxu koo am doole bu niiloon rek dafay dal jàll waaye gis ngeen bokkul ci équipe yi nga xam ne qualifié nañu dinañ ñëw léegi jox leen yi nga xam ne déjà qualifié nañu ba noppi kon Barça 1 la ko Shakhtar dal di bi ñu ñëwee nag ci timis gi gis nañ yeneen match yu neex yu amoon bokk na ci AC Milan bu doon joué seen diggante ak Paris Saint-Germain Paris nag AC Milan dal dinañ fas jom dal di koy dóor ñaari bal ci ne de Paris ñoo njëkk a dugal sax dañoo teel a e minute yi nga xam ne mooy Skriniar moo dal voilà sonnal lool sax gars yi waaye nag ki nga xamante ne mooy Olivier Giroud moo dugal bit bi ci des muy ñaari bal ci benn ñoom daal dinañuy jog takku topp gars yi fi ne nii kat ñoom mën nañu qualifié ba léegi ndax bi yéen fàttale ko match aller yi gagné ci benn ñoo nekkoon dadd ci seen groupe waaye nag fi ne nii position bi changé na dina li li nga xam ne mooy classement bi ngeen gis taxawaay bi nga xam ne AC am na ko léegi waaye nag ñeneen match

Ousmane dafa dal di amal doublé Alvaro Morata tam amal ab doublé yeneen bit yi ci des nag gars seedoo ko benn ak benn ñoom Saul voilà ñoom Lino ku nekk daal dégg maam jam benn waaye daal Atlético de Madrid jamono bii dañoo jaaxal sax ñi nga xamante di européens yi bu ngeen bàyyi xel Atlético équipe boo xam ne défendre rek lañu def ak xeex waaye ren jii de xaw ma ñu ngi xeex xaw ma xeexuñu mais ay bit moom ñoo koy marqué même championnat bu Espagne bu ñuy xool dañuy but à zéro bokk na ci match yi ba tey ñi nga xamante ñoo di Lazio dal di jël seen revanche ci Feyenoord gannaaw bi leen Feyenoord dóoree woon ca matchu aller ba retour bi tey ji Lazio dal di koy daral dal di koy dóor benn bal ci dara da ko pattal Immobile moo fa dal di jaar Immobile moo marqué benn bit bi nga xam ne ñoo di Royal Antwerp ndax Royal Antwerp gii dee bu ngeen di bàyyi xel mook Barça ñoo bokk poule waaye tey jii dee mën nañu wax ne bu mujj bi ci joxante googu mooy Pepe képp la lema Pepe bi nga xam ne défenseur la woon ca Real Madrid ci ay jamono tey yi na mu nekk foofu la ci Porto moom nag moo nekk ki gën màggat ku marqué ab bit ci li nga xam ne mooy Ligue des Champions 40 am na ko moom Pepe moom am na ñeent fukki at waaye ba léegi muy gën dëgër ndax tey ji moo marqué bit boobu nekk ki gën màggat ku marqué ab bit ci wàllum Ligue des Champions Red Bull Leipzig dafa dal di ne juróom benn match yoo xamante ne xewoon na wala juróom-ñett bu ñu xoolee nag jogante yooyu le bokk na ci équipe yi nga xam ne qualifié nañu bu ñu ñëwee ci groupe yi la tàmbalee groupe E Atlético de Madrid moom qualifié gul waaye nag fi ne nii bu ñuy xool moom li nga xamante mooy victoire Lazio bi arrangé ko ndax bu Lazio occasion lajjoon tey la jiitoo di da am Celtic moom mën nañu wax ne fi ne nii mënatul qualifié xanaa li muy xëcc kay mooy xool na may def ba dem Europa League mais toog moom jàpp nañ ne daanaka def na ko daanaka ndax 4 benn poñ 2 match yi ci des bu ko gañee mën na dem de waaye nag ndax gàdd ko mën a gañe en moom Celtic benn poñ képp la am amagum bu ñu xoolee groupe F foofu nag Paris Saint-Germain daal dina li nga xam ne mooy bopp classement bi moo jiitu woon di doxee nu ko neexee kay waaye gis ngeen mbir mi changé na de Dortmund bi nga xam ne dafa jàpp Newcastle United dóor ko aller ak retour moo jaxas lépp jamono bi Dortmund 7 points la daal am jiitu ci bopp classement ba ñii di Paris Saint-Germain fi ni kon dañoo sëgg ci ñaareelu place bi la nekk 6 points la am tey ji ñoom bu ñu gañe waa AC Milan dóor leen Paris saint ñoom seen doole ji fan la leen di jaar en tout cas qualifié léegi Borussia Dortmund bi nga xam ne jàppoon nañ ne moo gën a néew doole ci poule bi ndax bi ñu tàmbalee nag la am donte ne moo mujj waaye mën na jeexale moom it ca bopp classement ba groupe bi moo gën a jaxasoo ku ci nekk mën nga jël premier waaye ku ci nekk itam mën nga mujj ku ci nekk mën nga qualifié ku ci nekk mën nga toog léegi nag mooy xew ci ci la nekk ci jamono bile gannaaw bi ko Dortmund daal di jiite ñu xool fa muy mujj groupe G mooy groupe bi nga xamante ni fa Manchester City daal di nekk moom nag jamono bi mooy jiitu 12 la daal di am ay matcham yépp da ko gagné 4 matchs 4 la daal di am Red Bull Leipzig tol topp ci am lu toll ci 9 ñi nga xamante ñoo di Étoile Rouge ak Young Boys ku ci nekk ci ñoom ñaar benn nga daal di am lii lu muy tekki mooy ñi di waa Manchester tax na pourto dab ko fi nit nag li gars di wax bukki bu dawee wax mbaane ca doxin wala voilà kon ñii di waa Porto dab nañu Barcelone nii nag li muy yi di ñëw te Porto nag la war a am ak ñi nga xamante ñoo di waa Antwerp Antwerp nag mën nañu jàpp ne xëy na Barça mën na ko dóor waaye Porto nag xëy na foofu la coow li nekk kon loolu mooy li nga xam ne mooy groupe yi nga xam ne déjà joué nañu tey yeneen yi ci des dinañu joué ni ki suba équipe yi nga xam ne qualifié nañu wax nañ leen ko mooy Leipzig bi nga xamante moom ngeen di gis nii ak ñi nga xamante di waa Manchester City ñoom it dal dinañu qualifié bu ñu xoolee nag homme du match quelque lañ fi am rek kii di Griezmann homme du match la gannaaw bi mu amalee PSG léegi dañuy génn Europe dem fële nga xamante ni mooy ca Asie bu ñu xoolee nag foofule Ligue des champions lañ doon amal ñoom itam li ñu tuddee AFC Champions League waaye nag tey ji Al Nassr dafa daal am ndam 3 buts à 2 la woon contre Philippe Coutinho Al Duhail ñoo doon joué seen diggante ak Al Nassr Al Nassr daal koy dóor 3 buts à ci jogante googu nag kii ngeen di gis ni muy Talisca moo amal triplé ñetti bal yëpp moo ko daal di Philippe Coutinho mo dugal sen ñaari bal yépp doublé la amal walau mom club bobu nga xam ci Qatar la jógee tay jilé kon Al Nassr da ko dal di ci jongante gogulé ñetti bal ci ñaar Al Ittihad dal dinañu dakk ki nga xam mo moo leen doon tagat wala Nuno Espirito Santo dakk nañu ko dé mom mi nga xam mo doon tagat Karim Benzema ñom Golo Kanté wala ga yoy tay ji dal dinañu koy dakk mom nak nek ko xamanteni ci jël ben déggo nañu li nga xamanteni moy kokanté gum doon amal ak Benzema amna na kayiti xibaar yu ko bir loon yoo xam ne dafa bëgg nangul li nga ne capitaine am ban bi manam bëggul Benzema nek capitaine da bëggul won sax ñu dal di koy signé nangam nangam dafa li nga xamante mooy voilà ni mu bëgg footballé loolu yëpp doon nañ ko dégg ci njëlbeen waaye mel ni ni jàmm dellu si na tey ji nag dal nañ ko dàq takkal nañu ko la mu am na ko acca keneen moo war a ñëw jiite li nga xam ne mooy équipe boobu nga xam ne fa la Golo Kanté di footballé ak kii di Karim Benzema Youssouf Sabaly l'international sénégalais bi moom du xibaar bu neex gars ndax Sabaly dafa amaat blessure waxoon nañ leen fa nii ne dellu si na wala amaate li nga xam moy gañu gañu tay ji lañ ko daldi di gañu gañu bobu le nak nag ni amna ci cadre yu wuute yu ñuy faral di dégg yenn kay di xibaar ñuy gën di xam la né idi di buñu amul chance du dem ci li nga xam moy kan bi dé ñu naan ñaari wër dana ko tok du ko faj di ko faju te du football ñaari wër dana ko tok du dellu ci ñaari wër nak ko tok fi ni ne nii dañuy sës ci kan bi du jàppandi mu pour mu dem waye tam yeer nañ ci yeen ci ay kay di xibaar ñuy xam la né ay semaine rek la wara tok lool yëpp ay mbir yo xamanté dara leeru ci ndax kan ñi di Real Betis ñi nga xam ñoo annoncer mbiri waxu ñu mom saabali ñaata temps lay tok bala muy dellu ci kon lool dañuy wéy di ko topp en tout cas leen li leen di wax moy gañu na mom sabali bi nga xamanteni kan bi wessu bokul ci won daf ko wuté won ndax ay blessure ku ñak chance la nak manam gañu gañu mom da ko yomb lool kan bi senegal gañu bokul ci won te bi xañ na waroon na nekk te bu fekente ne rëcc na bi recc na ko na nekkoon ki di sabali mom wala bala ñu dem ci benen kan dina fek mu magat en tout cas li xarañ yépp ak li am njëriñ ci équipe bi ku ñak chance la te li ko indi moy ay gañu gaañu danañu way nak ci top blessure bobu ñaata temps la kay tok bala muy delu ci CHAN bi nak nañu am yuñ ci amal xam nga ren ji warna amal 2024 CHAN bi nak nañu day dañ ko gën a yaatal de fi nu nii daal dañuy wax mooy bépp joueur boo xamante ni yaa ngi footballé fii ci Afrique mën nga ci bokk xam nga CHAN bi maanaam équipe nationale bi nga xam dafay dem footbali joueur yi nekk ci réewam rek lay jël maanaam Sénégal bu dee day footbali joueur yi nga xamante ne ay Sénégalais lañ nekk fii ci réew mi di football ci championnat bi rek a ci doon bokk léegi nag nee nañu coppite am na ci de même joueur yi nga xamante ay Sénégalais lañ nekk ci yeneen dëkk yi fii ci Afrique mën nañ leen récupérer ngir

gëm waaye moom da ko weddi de nee na ko ba am seet wecc mu ne daal moom ak Brahim amuñu benn problème mooy loolu du benn dëgg gars yi ñuy wax loolu dañuy wax lu leen neex du benn dëgg Brahim Diaz nekkul koo xamante ni maanaam daf ko bañ wala dafa am nga moom problème mu ne concurrence bi moo tax rek moo tax football yëpp kere ba mu ko dugalee mu marqué but laa ne booy bi am na problème kii dooruñu ko jox temps de jeu ki nga xam ne mooy Carlo yu bëri dañ koy teg ci banc bi waaye Vinicius moom bu doxul sax dañ koy bàyyi ci terrain bi en tout cas li nga xam ne moom lay traité kii di Brahim Diaz tegul ko ci yoon te moom nag tey ji dal dina koy wéddi ba mu set wecc ndax gone gi dafa nekkoon ci AC Milan da ko toj ñëpp bëgg ko waaye fi mu ñu bëri fàtte nañu ko depuis mu dellu foofu la ca Real Madrid yaay li mooy li gënoon fes ci kayiti xibaar yi kon di leen suivre Sen Sports